Cheikh Béthio jaamu Serigne Saliou yàlla na fi yàgg lool te may nuyoo di jiital di nuyoo bi Cheikh Mountakha Bachir xalif général kullu murid di ca teg Baye Fall yi di jël nuyoo ba di ko teg ci loxol Cheikh Jëmb Fall di ci teg waa kër Serigne Saliou Mbacké ñooñu nga xam ne lu jur njaagate ñooy njaag di nuyu ñii ci sama ginnaaw toog ci taabal di waa kër cheikh bi ñi nga xam ni amoon nañu yéene àndoon ak cheikh bi te yàlla weddi ci anam bu ne ak ñii fi teew tey ñoo ngi leen di nuyu te di leen sargal di jiital ci nuyoo bi soxna Aida mi nga xam ni mooy jëwriñu liggéey bi moom la cheikh bi teg liggéey bi ci ay loxoom kon bu ñu jëlee kàddu war a xam fi ñuy tàmbale kon soxna si ñu ngi lay nuyu te di la ñaanal nga am ndam ci liggéey bi yàgga taxaloo ngërëmul sëriñ beccu di ci teg soxna Adja jëwriñ universel moom mi nga xam ni itam dafa jiital soxna Aida te dégg guma man ndax boroom yëf yi di sëñ Béthio dana waxtaan ak man te dégg guma pakkatal gu ma pakkatal kon ñoo ngi ñaan ànd bi sax ci barket Serigne Salim di ci teg nag ndey daara yii ndax ñi ñoo ñu yar sëñ Béthio ci ñi ko xamul ci dëkk ji la ganee àddina bu ñu doon wax cosaanam fii la boobee kër Samba Lawbe la Samba Lawbe kër bu ñu jarbaatam bu ñuy wax mataar Diop di jarbaatub lenqeem donnu dëkk bi ak njabootam a ngi fii Matar Samba Lawbe am nu mu demee woon ak kuli mi nga xam ne moo jur mooy way juru Cheikh Béthio kon Cheikh Béthio bu ñu yemoon tey ci dikk ci bis bii di sant rek ndax kii mu ganee àddina benn point la ci ni ma ko waxee mu ànd ak ñii ñuy suñu ndey daara ñu ngi leen di ñaanal yéen tamit ngeen yàgg fi te bañ a wuute daray sëriñ bi sëriñ Béthio nag boo ko doon tagg ci cosaan dañuy wax ni Bambi Caam mooy way juram soxna si micro bii nga ma jox lenn rek laa ci am lu ma lu ma xaw a moo di bu ma ko waajoon tey nga xam kon tey nga xam ni sëñ Tuuba sëñ Béthio du moroomu kenn te ci rajo laay wax ci ay télévision laay wax te bu ma ko waxee sëñ Saliou woo ko wax te loolee laay jóge ba wax ko Bambi Caam a ko jur taawloo ku ñuy wax Mambenda sama ndey teg ci Samba Lawbe mi tuddee borom dëkk bii teg ci Soxna teg ci Gile teg ci Cheikh Béthio teg ci Kumba Sall Mbay mi mu tëddee way juru gi seen teg ci Ama Dey Ciwun teg ci Yaasin Joor Siga teg ci Kumba Tayba ab seex la woon benn seex bi dafa teel a seqeeku caatloo jëmm ju ñu daan murit yuun tafsir afisul quran buñ ko doon yamale ci loolu foo takk ci ndeyam tey jar nañu baas fii ba biir mbuur ndax jigéen ju baax taarix indi na ni jigéen la woon joo xam ni benn yoon la ma sa laajub jamono di dox ba bi muy mujj ñaareelu euh, caatam ñu di ko wax ne kumba tawat dab ko muy jamonoy guerre ba te boobu àddina neexul soxna Bambi nekkoon soxna su wéradi biñ ko hospitalisé Thiès ba teg ko docteur Carvalho dafa yónni ci kuli ni leen bu ngeen demee nee ku di cuur na ñëw seet si Bambi Thiam ndax li ko day sa mu dund waxtu yu néew la te booba mooy de transport yi melul nii ku li continuer doon liggéey mu ni ko ku li yow la ñuy waxal xanaa mënoo noo li la waa ji wax mu ni ceel ci magoon ce jataay ba daal ni ko kuli nee nañu la Bambi Thiam li ko desi du néew la jógal seeti ko te ñaanal ko mu ni ko fenn laa demul bambi caam du ma jaral séqi tànk ak morom ma ñu ni ko li ngay wax foo ko teg mu leen damaa xam ni bambi du dee mukk te lekkul ñaxum njaboot loolu buñ ko yemale woon ci loolu xam ni góor gu jara sant la ci ndey waaye ndey ju baax joojee jural ko loolee lépp ba mu ànd ak Serigne Saliou Mbacké le 17 avril 1946 un an après la guerre mondiale boobee jamono melul nii boobee dëkk bi neexul waaye sëñ Béthio sëriñ Saliou def ci moom loo xam ni foo masee toog ak moom di nga jàngaat ci moom lu baree baree bari te kenn jàngalu ko ku dul sëriñ Saliou booba murit melul nii ndax ñun dootuñu ay gonati ci yoonu murit lañ juddu booba bu murit yi di julli seeni it seeni sàppe ñaari sàppe lay doon boo demee ca Thiès dëkk ba nga xam ne fa la fekk baax muy Thiès moom suñu mbéy mu def jàng lycée ba yàlla def mu nekk un instituteur adjoint di militer ci parti bu ñuy wax PAI parti boobee ndax mas naa ko ko wax dama ni ko li la mas a soxal toujours mooy libérer saw askan libération nag dafa bari ay yoon Mao Zedong mu ngi nii ñaata million ngi nit la rey pour libérer Chine boo demee dëkk yu mel noonu dëkk yi fi mel noonu buñ ko doon lim duñ fi jóge mu taxaw di ab marxiste léniniste ni taxaw day taxaw libérer am réewam en militant au PAI seen premier assemblée générale ñu ko def en 1957 à Thiès à la rue sans soleil ci pharmacie bu ñuy wax Félicia Bass ñi miin Thiès war a ñoo xam pharmacie Bass mu nekk ca di ci milité ba boobee Ousmane Camara mii si nekkoon médiateur la République boobu mooy le procureur de la République de Thiès ñu jàpp sëñ Béthio ndax clandestine boobu mu noonu milité bis boobee keroog bi ñu koy yëg waxtu timis la te am na jëmm yu fii teew ju demee ni ma penda mu yar mënoon na cee wax lu bëree baree baree bëri ñu jël ko tëj ko kaso bu ñuy wax tropical le camp des gardes bu Thiès boobu foofee la prison ba nekk sama way wu jigéen dikk ci sëñ am satu Amsatu Jaxate wax ko ko way juru sëriñ Saaliw dina yaayi lenqeen sëñ satu jël ñaan nga jox ko ko ni ko boo ko demee nga def ko fañ ko denc bi ñu dikkee ñaan googee boo ko seetloo bañ ko fa demee ci la cee kasob Thiès gent ñu yóbbu ko dixième keroog biñ leen di jugé à am na nijaay ju ñuy wax Samba Xewe Thiam da ko ni bu ko yoon may woon tey dama lay tagg ba ni ngay taxawee ci baaru tribunal bi ndax sa jàmbaar sëñ Béthio la ma nit ku amul fit la ma te lii da koo wonee lii mu am kër Serigne Saliou Mbacké aw fit rek a ko jox ak ngoram du woon lu mu man sëñ Béthio daan na toog samay bokk mu ngi fii di ma dégg soxna yaa ngi nii toog fekke nañ ko bëgg bu mu bëggoon Serigne Saliou Mbacke tax na bu duggee kër Serigne Saliou bu fekkee ñu toog ceeb boo xam ne amul tamaate famille bi kenn dootu ci toggati ceeb bu amul tamaate ñu ngi nii dañu am na mbub mu Serigne Saliou daan sol ñu di ko wax modèle marabu boobu tailleur bu ñuy wax Moubabi yi à la rue 22 moo koy ñaw